waaw salaamaaleykum euh, suñu mbokk internet yi salaamaaleykum waa Géejawaay Euh, salaamaaleykum waa àdduna comme li ma ko yàgg di wax rek yàgg naa ni géejawaay info du géejawaay rek ñoo koy seetaan dañ koy seetaan ci àdduna bi yëpp tey comme suñu rubrique bi ñuy def rek grand débriefing euh, dañ tey dañu am benn numéro bu spécial nag parce que tey ki ñu seet si la dañu seet si un grand monsieur euh, monsieur Pape Thialis Faye bi nga xam te moom mooy le PDG bu Leewtoo production en même temps nekk aussi président géejawaay football club donc partie ñaari partie lañ koy def nag deuxième partie bi moom laay gérer bi nga xam te ni dafa jëm ci wàllum géejawaay bi nga xam ni maîtriser nañ ko bàyyi ko mu mu mu nuyoo après ñu ñëw ci waxtaan bi monsieur Faye ñu ngi lay nuyu baax. waaw ñu ngi lay fay Laye Cissé di nuyu ñi nga àndal ñëpp di nuyu aussi waa Guédiawaye info. Mm-hmm. di nuyu population Guédiawaye di nuyu population Sénégal bi yëpp. Mm-hmm. donc di leen di leen di leen di ñoom ñëpp. Mm-hmm. aussi di leen mastaw si mbas mi nga xam ne tey jii. donc nekk na loo xam ne frappé na tey monde bi yëpp. donc di masawu ñi si loru di masawu ñi nga xam ne loru nañ ci yëpp. donc euh, loolu amul. donc ñi nga xam te ne xamuñu kii Pape Thialis Faye bu ñu mënoon xam ci résumé euh, kan mooy Pape rek Thialis Faye. waaw Pape Thialis Faye c'est un jeune sénégalais peut-être xëy na euh, ñu ma xamul bëriwul parce que j'ai jamais quitté ce pays là Sénégal laa mos a mm-hmm. donc jaar si école école yi jaar déjà à Diourbel école primaire jóge fa dem Saint-Louis. Mm-hmm. terminé fa euh, école primaire bi terminé fa juste am fa aussi mm-hmm. cycle secondaire bi ñu xaw fa def ba quatrième jóge fa ñëwaat Dakar mm-hmm. donc sur euh, de la fosse amee fa BFM terminé Lamine Gueye donc loolu mooy suñu suñ suñ suñ scolaire mm-hmm. donc déjà aussi c'est école de formation yu bëri comme IFP euh, ñumu mm-hmm. nekk naa fa aussi def en circuit informatique ingénieur en informatique mm-hmm. donc ñu arrêté maintenant bu weesoo loolu aussi sur le plan football bi nga xam ne si aussi je pense que j'ai fait ma jeunesse là-bas donc beaucoup ci joué fa cadet joué fa nawetaan joué fa senior. Mhm. jóge fa aussi nekk fa dirigeant coach coach club nawetaan. Mhm. jóge fa nekk fa dirigeant ba nekk fa président club nawetaan. Mhm. donc ba yàlla def nekk aussi supporteru GFC. bokk ci dirigeant GFC yi. temps yi ñu amee crise bi ma nekk ci. ba yàlla def tey jii ma nekk président Guédiawaye football club. naka nga gisee espoiru Guédiawaye. de manière générale sport de manière générale. waaw sport bi de manière générale aujourd'hui am nañ ci yaakaar. Hmm. peut xëy na bu njëkk bi amuñu si woon benn idée bu bu bu précise mais tey ren li ñu gis nii am nañ ci yaakaar parce que sport bi dafa am tey ji koo xam ne. Hmm. moom mooy euh, moom mooy jiite football bi sport au niveau de. de de Guédiawaye surtout football bi. mais monsieur Alioune Mbaye bi nga xamné tay mom moy kii départemental bi. donc loolu rek espoir la pour wane ni xéne na dina changer te nu ñu gisalee muy dox muy muy commencé doxalee. donc wane nañu dal vraiment dem espoir que ni espoir bi dina dox au niveau de Guédiawaye. donc mën nañ xam euh, Pape Thialis Seye euh, ak association bi ak Pape Thialis Seye ak Guédiawaye football pro manam Pape Thialis Seye ci ban la nek ci association bi la bokk wala ci football waaw man non moi je suis déjà membre de l'association mhm. man je suis déjà membre de l'association association euh, na depuis gàkku nek fa on a été membre de l'association boxe association di entraînement di ñëw réunion di def yëpp ba ñu donc quand gako a démissionné aussi il m'a appelé pour me dire que dafa démissionner. waxtan nañ ci entre frère ak frère am en tant man ma petit frère am ñu bokku di liguey di collaborer donc ñu waxtan ci mais téwul mañ ma bayyi parce que mon peut-être xëy amna ay amna ay amna amna raison personnelle am tax mu mais man en tant que membre de membre de l'association donc mhm. bàyyi ma waru tax ma bàyyi ba ci laa continuer. Mhm. ba def tey jii ma nekk président donc juste avant mon nekk président Guédiawaye football club je suis déjà. Mhm. membre de l'association donc nous gis ne yaa ngi ko wax sànq euh, monsieur euh, Malika comme ma de passage. nekkoon na fi président. Euh, contexte yi tax mu bàyyi xam ko. côté financier la on comme mu ni amatul maanaam carte ngi pour y équipe bi. est ce que jamono jooju aussi pourquoi ngeen toogoon tamit bàyyi woon équipe bi non comme ça sans non en fait lolo, suis man collaborateur direct am mm-hmm. parce que man suis collaborateur direct c'est mm-hmm. un frère là, mais on a commencé à cheminer depuis 2009 di ensemble. Mm-hmm. donc période ce n'est pas un problème de finances je pense que ñi un lu de finances environnement bi la woon ak conditions yi fa nekkoon ak coow yu fa daan on yooyu parce que aussi association dafa difficile à gérer. Mm-hmm. parce que nit ñi dañu bëri ki nekk day ñëw jikkoom ki ñëw day ñëw ak ay mm-hmm. donc à moment donné yow ngay génne sa xaalis daf te doo si dégg lu la neex. Mm-hmm. donc loolu moo gënoon tax mu bàyyi. mais ce n'est pas un problème d'argent parce que ba léegi je pense que ni yàlla mi ngi koy suturaal. Mhm. te yore club aussi lu mu metti metti metti boo si engagé war yàlla suñu borom dina la suturaal nga mën ko parce c'est pas c'est pas si si si difficile. Mhm. peut xëy na football bi joxewul amul rendement joxewul dara loo xam ne tey jii nga ci mën nga am retour retour sur investissement. Mhm. mais quand même nekkul loo xam ne aussi mën na mën na la empêcher nga dund. Mm-hmm. bon ñu gis ne équipe bi am na problème dafa amoon problème bi amoon ci ginnaaw dinañ ci ñëwaat tuuti. Mm-hmm. Euh, mu nekkoon ci contexte bu difficile. Mm-hmm. Euh, pap Thialis fay jël équipe bi. lan moo la motivé woon nga jël équipe bi ak euh, élection boobu naka la demee woon. waaw avant ñu revenir sur ça ma revenir aussi si kàkku bi nga wax ne problème pourquoi bu mu waxee ni problème mu xaalis ñu jàppale wuñ ko. non on était là parce que même ba mu bàyyee moom ñu on continuer ak ak équipe bi di dem ak moom. donc on cotiser dañ dem cotiser match en mi temps bu amee dañ dem dajew ci souf cotiser. Mhm. fay transport fay ci fay jori premier yooyu yëpp. Mhm. donc loolu lañ mës def ba équipe bi ñu yàlla defee ñu dem année bi saison bi jeex. Mhm. ñu maintenir équipe bi gis koo xam ne ñëw na aussi tàllal ñu loxoom pour jël équipe bi moment yooyu mu nekk moment difficile ñu jël jox ko équipe bi. donc loolu mooy indi tey jii si problème question bi ngay posé ni mi problème mu problème mu Guédiawaye football club. donc man li ma motivé si équipe bi d' abord je suis membre parce que ñun.

Mm. Baba, on va parler maintenant des cartes de membres ak yooyu mm. mais képp kii nekk Guédiawaye rek pour man membre association bi mm. donc nous, on était membre actif c'est-à-dire membre actif différent ak membre qui xam ne actif donc l'homme mooy différence bi mooy nga actif si moi nga nekk ci di si di dem ak di match di si participer di participer réunion je suis actif daal ku dugg ci association bi mm-hmm, mm-hmm. lépp association bi dox nga nekk ci mm-hmm. donc ñun si loolu lañ nekkoon donc association bi réunion réunion association bi di amee problème ñu woote pour fay wala pour def dara dañuy ñëw ki nekk li nga am ngay indi on wuñ kenn li nga am mhm. donc bu match amee aussi bu ñu mi-temps wee ñu war a fay transport fay primi duñu imposé kenn mais ko mhm. mhm. bu ñu nekkee actif si association à un moment donné ñoom kenn koo xam ne ñëw na jël équipe bi wàccee ñu coono boobu yëpp. Mhm. mais boo actifoon dootoo actif parce que tey jii c'est un contrat privé moom moom moo moom moo moo lii association bi. Mhm. ak ki nga xam ne mooy ki fa nekkoon yore jàppoo SA. Mhm. donc kooku bu ma amee un contrat bu leen lié c'est un contrat professionnel privé donc ñu nga xam ne association dañu xaw a nekk en retrait. bàyyi ko moom mu doxal mu liggéey. loolu moo nekkoon moo indi woon suñu recul ko problème association ñëw. est-ce que est-ce que est-ce que même contrat nga wax mm-hmm. est que contrat lié ak non différence. Ça mm. à contrat contrat contrat privé privé mais a différence cest à contrat li tax différence. Mm-hmm. contrat parce que erreur erreur la jangé ba ñu mm-hmm. contrat Jamil avait un contrat pour baax ak association parce que moment où il na ba mu déjà modèle ou contrat c'est la première fois le club Sénégal am ko. Mm-hmm. donc pour nous, c'est le football mu am Sénégal c'est Sénégal. Mm-hmm. donc le contrat bo, Jamil avait 100% 100% cent. cent pour mm-hmm. toutes les sections que ce soit amateur.

Mm-hmm. parce que association bi moom le maire bi reconnaître comme kii jël mm-hmm. subvention mm-hmm. man mii tey ji diriger parti professionnel bi c'est comment ak mairie et subvention la mairie ne m'aide pas mairie lu mu joxe du dara lu dugg sama poste wala dem lu dugg si poste club mais association bi la koy yoppa association bi moom la moom état donc moom moom mu bokk si mairie Guédiawaye moom le mairie bi di jox subvention donc même le maire aussi la possibilité d'utiliser utiliser infrastructure yi ville Mais mm. mais Jamil gens privé là. donc c'est un privé même si le mm. club bi day en tant que privé. Mm. parce qu'aujourd'hui, le football professionnel amu fi woon a ans ñu suis football professionnel. Mm-hmm. mais le football boo tous les clubs cest à dire club club traditionnel ils créent une société. Mm-hmm. Il créé une société qui xam gérer la partie professionnelle. Mhm. donc mi mi comme GFC Pro. comme GFC aussi. donc vous avez c'est GFC Pro aussi du société voilà. non GFC Pro c'est une société. n'est mhm. pas le club. Mhm. c'est la société que nous avons créée pour que mu gérer la partie professionnelle. parce que xaalis day génn xaalis du dugg. Mhm. te loolu xaalis di génn xaalis il faut une structure pour koy gérer. société est ce que mën nañu xam kan moo détenir euh, pourcentage bi. on va revenir sur ça je vais mhm. revenir sur yooyu D'accord. d' accord naa leen revenir si mhm. donc pour te dire que ni. donc lolu, lolu mooy lolu, lolu mooy lolu loolu mooy tax ñu créer société pour ñu mën a bokk ci professionnel bi. maintenant Jamil moom créer société mooy jàppee ça, mu ñëw contractualiser le contrat ak waa association bi. mais si le contrat am nay clause yoo ne peut respecter respecté wu ko. il a ses raisons pourquoi respecter wu ko mooy tey si clause menace, mën si wax mooy foog nañ ut benn siège au bout ne le que le professionnel bi. wala mhm. loolu dafa ko. waroon jox chaque année. 500 cent mille association bi. Mhm. pour joxe une fois après mu boole ko ko parce que am nañ problèmes

évaluation buñ def. moy mhm. le contrat tire à sa fin même quel que soit problème il ñu am yëpp yo pour man ay problème. Mhm. ay ay effet de principe le rek. Mhm. donc mais quand même buñ le contrat bi à sa fin il faut une évaluation c'est comme tay ñu ku ma lui ma jël di fi mais un an bu contrat bu waree jeex on a toog ak kooku ñu évaluer moi quand même li ma neex si kër gi mu wax aussi moom lu ko neex sama doxalin samay fay paiement yooyu yëpp mu wax ko bu yàlla defee ñu d'accord accord que ñun pas amuñu problème on peut continuer ñu continuer waat mhm. fi yàlla defee ni mënuñu continuer parce que les mois tax bu loolu bu ñu ko réglé ñu arrêté mhm. donc évaluation man dañ ko war d'af def donc il faut a évaluer ak tu su la jox cent parce que géejawaay kenn moomu ko man moomu ma ko moom quel est kenn que géejawaay moomu ko c' c'est pour mhm. toute la ville donc mais en principe ce yi ñoom ñoo donc bu évaluer mais évaluation mo amul. Mmh. évaluation la ñu def évaluer ñu wax comme les gens jox nañ ko 6 ans mom 100 mais au moins situation bi bu renouveler nañ ko baye 25 mmh. parce que aussi mono jël ab club ñi 100 jox ko nit mu ci même ci 100 millions

mais notoriété bi ngay am ba nit ñi xam la label bi ngay jël du yóbbu yooyu yëpp gain la pour man. Mm-hmm. looy looy gañe la. Mm-hmm. boole si aussi maintenant xaalis bi li ngay investi moom retour d'investissement. Mm-hmm. mais loolu ñun association bu ñu bu ñu ko bu ñu ko bu ñu xamul ñaata nga gagné xamuñu loolu yëpp. ça pose problème. donc donc su ma ñëwaatee ci sa biir wax euh, donc su ma jàppee ci wax am nga lu ngeen koy reproché mooy li ngeen ko doon reproché mooy ñaari mbir. Euh, le fait que mu dag xaalis bi nga xam do nako verser association bi un beneen bi mooy euh, structure bi nga xam da ko defar ah, ta defaru ko est-ce que tamit euh, gis ngeen aussi loolu rek doyna pour ngeen débarrasser ki nga xamante ni il a fait de très bons résultats. non non luñ ko luñ ko reprocher du loolu rek. Mm-hmm. luñ ko reprocher moy clause yi nga xamne ne na ci parce du loolu rek am na mm-hmm. yeneen clause yi si nekk xamne ne respecté wu ko. Mm-hmm. loolu loolu lañ ko reprocher li si yep lo xamne ne respecté wu ko loolu lañ ko reprocher donc c'est c'est légitime de nous reprocher ko parce que contrat contrat qui ki nekk engagement il war respecter respecté si contrat maintenant si vous respecté wul contrat bi respecté ko. Mhm. donc lolu donc du lolu rek lolu si vous na ci bi amna na yeneen yoo xam ne ñu ngi si biir. contrat bi mhm. maintenant résultat sportif yi mu def pour moi, lolu résultat bi par rapport ak mom parce que mhm. résultat en tant qu'association, association ñu résultat même bu amé lu ñu gëna amal importance moy mu respecter contrat bi parce que ay nawle lañu mom na suñu nawle la ñu nekk nawleem. Mhm. donc contrat bu lié ñaara nawle faut ñaara nawle ki nek respecté sa engagement. respecté xamna man mi kat kii yow mii sama nawle nga. Mhm. mo jox la cëru nawle boobu mhm. respecté la. mais lool mo amul suñu diggante ak mom dafa amul suñu diggante ak mom te man j'étais pas prêt pour jël équipe bi yalla mo ma ba fi jógee dama réunion xalaatuma sa jël équipe bi. mais c'était juste pour assister apporter man sama xam-xam apporter li nga xam ne mën naa ko ci wax su lu rafet pour defar. mais à un moment donné mun na ba mu xëcc ni jàpp ni àdduna moom suñu borom joxul kenn day dénkaane. il faut nit ñi revenir si loolu xam ne àdduna ku mënti nekk. Mhm. en commençant par mois même suñu borom lépp lu mu la jox dala ko dénk. dala ko dénk mais jox la loo moom. Mhm. loola loola namoo si dëkk bi parce que fii kañ juddu fi nekk milliardaire. Mhm. donc loo am rek suñu borom moo la ko dénk te boo amee humilité tuuti. li mm-hmm. nga xam ne suñu borom moo la ko a a wàccee sa bopp. Mm-hmm. mën a mën a ñi ngay ñàkkal en face nga jàppale mm-hmm. ma a jël équipe bi parce que à un moment donné je suis fii que ni pare jàpp na ni moom géej waaye lay dimbale suñ ku fi baax suñu borom moo lay dimbale. loolu moom si dugal te mu si dugal loolu moo tax ma dugg si. te ba léegi regretté mu dugg si parce que xëy na jàppoon am na am ñoom tey jii libéré naa leen. Mm-hmm. parce que jàpp ay nit ñu toog ay retraité yoo xam ne peut être liggéeyuñu ñoo xam ne peut tey ñëpp xam nañ dëkk bi nu mu demee. Mm-hmm. ñooñu tey boo leen bëggee imposer loi xaalis tey amuñu xaalis. Mm-hmm. ça pose problème loolu mooy da nga leen di bëgg a noot. mais suñu borom xëy na moo na ma assister si réunion moo na ma xëy na jàpp ci ma jàpp ci te vraiment regretté parce que ñoom ñëpp retrouvé wu nañ ci équipe bi ñu ngi góorgóorlu ñu ñëpp ñu siy jàpp. parfois mu difficilement ñoom ñu jàpp ci ainsi de suite te loolu mooy association loolu moy mooy club. Mhm. donc ñu nekkoon ci moment bu difficile ah première année bi nga xam te jël nga équipe bi. Mhm. Euh, équipe bi nekk première division ab ah, mu wàcc en deuxième division. Mhm. Euh, naka nga ko dundee période boobu ak coow li ci am entre supporters yi ak ak ak ak club bi. waaw mais xam nga àdduna moom dara yombul c'est-à-dire ñun moom man sama philosophie mooy suñu àdduna dara yombul. boo fa nekkee.

jàppale mënoo ko téye bu baax. donc lépp la am da nga si war a sonn. donc Guédiawaye mënoo ko yore ak nu club bu toll ak nu mu mel. mu war a yomb noonu ma téye ko noonu lépp ñoom mënu nekk. il faut ma jaar say moments difficile pour mën a xam njëriñu club bi. Mhm. donc moo tax dama ko dund ak.

participation ou toutes les populations de de il mm-hmm. yow ñi si nekkoon ñi nga ne si yeneen mais yooyu ça mm-hmm. c'est normal à un moment donné il faut ki nekk am camp mm-hmm. mais pour moi bu weesoo rek dañu war retrouver pour autour de l'équipe et je pense qu'aujourd'hui c'est le moment que ñëpp retrouver autour de l'équipe parce que équipe bi man damay l'équipe restera et les supporters mais tout dirigeant fa nekk damay jam donc loolu noonu nga wax noonu ñëpp retrouver autour de l'équipe euh, ban rôle si monsieur Thialy Faye war parce que ñëpp jàpp nañu aussi au début euh, communication bi moo xawoon des par rapport ak ñeneen bi nga xam te jàpp na ñoo nekk ci beneen camp bi. Euh, waaw non mais communication. toujours Sénégal lu ñu wax ne communication communication. Mhm. mais aussi il faut communiquer communication ba ànd ak moment buy war a communiquer. Mhm. parce que problème am na donc ki nekk mi ngi mi ngi mi ngi. tiire si camp mhm. donc amul communication léegi mooy appel nga def pour xëcc nit ñi ñëw. Mhm. mais appel boobu bogo ko defee nit ñi dégguñu. Mhm. et que yóbbu nañ foo xam ne si yoon lañ jëm. mais da ngay bàyyi yoon yoon yoon yoon yoon ñu dem si yoon. maintenant tey aujourd'hui boo gisee mu calme c'est parce que dem nañ ci yoon parce que ñëpp jàppoon nañ xëy na am na dëgg. jàppoon nañ aussi am nañ dëgg mais xamoon ne ni ñu fu mënti dem ñu ñooy am dëgg. parce que contrat bi si ne dafa leer maintenant nit ñi balaa ngay dugg si dara il faut nga maîtriser déjà contrat bi ak contours yi mais à y a des gens qui ont am ko maîtriser am ñoo xamné aussi mm. aussi ñu dañuy top ni c'est pas c'est pas Sénégal non lay doxee. Mm-hmm. waaw que lay xey di wax ci dara lo maîtriser dara. Mm-hmm. mais si la nekk ba parce que bo xolé tay équipe bi nu mu mm-hmm. c'est 100% que ça soit les joueurs que ça soit l'encadrement technique. leur communication la. c'est un appel pour que nit ñi xamné li la parce que tey mën nañ fu nekk mi première année deuxième troisième année chaque jour maximum bu fay nek 80%, 90% pour cent quatre donc ça veut dire que c'est un appel fort donc il s'agit pas jël micro du wax di wo nit ñi. Mm-hmm. mais y a des acteurs qui poser rek sont des acteurs qui participent à la communication. Mm-hmm voilà donc ñu gis aussi euh, euh, am na loo waxoon début bi ngay jël équipe bi. euh tani wa da ngay def euh, li nga xam te de plus ki li fi nekkoon ki nga xam mo moo nekkoon sa ce président bi fi jaar def. manam di nga jël ay trophées bari est-ce que loolu yaa ngi ci ba légui ak ce bilan bobu naka nga gën a tirer pendant les les 3 ans yi nga xam yaa nekk ci club bi mom la xam nga ambition la rek. Mm-hmm. am luñu bëgg gëm ni objectif yi dañ koy atteindre. Mm-hmm. mais suñu borom moy wacce moment yo xamné do comprendre en première année bi nga wax nonou mhm. ak bataille bi suñu objectif c'était pas c'était juste exister parce que ñi ngi xëccoo kenn xamul ko moy football suba. Mhm. donc ñu aussi ñu croiser les bras mënuñu décliner ay ambition ne lii lañ bëgg donc il fallait ñu def ko. Mhm. sinon dañ ñi ñii ñu dara. donc c'était pas bo xolé c'était pas de loo yoo xam ne mën na parce que environnement bi permettre lolu mais aussi du ñu nit ñi que li lii enrompe ko dañuy croiser les bras. Mm-hmm. foo wone aux gens que dañ ci gëm dañ ko bëgg mo tax ñu exister. Mm-hmm. parce que bo carré woon équipe pour football do exister. Mm-hmm. te boo exister wul tu disparaît que quand on disparaît. le Guédiawaye à apart de de de dellu si Jamil Jamil Dëkkay moom. donc moo tax on a fait tout fait pour que ñu exister si première année bi. deuxième année bi ñëw conflit bi aussi toujours mi ngi fa des na parce que. xëy am na ñoo xam ils sont réticents mënu ñu comprendre que ni lii peut-être alalu géej waaye du mhm. donc mu xaw a difficile. Mhm. donc mu taxaw ñu wàcc première année bi dem L2. Mhm. L2 aussi on a eu peut la chance ñu yéeg yéeguñu. mais bu yëpp apprentissage la. ba ci aussi suñu borom def mbass bi ñëw ça c'est très compliqué. mais yépp dañ koy tek suñu loxo suñu borom. parce que bu bëggon tay tay tay ma ma atteindre sama objectif dama koy atteindre. donc bu indee li yépp te moment yi ñek période yu ma ki amul benn président géej waaye bu ci jaar. dund période yi. même footballu Sénégal am daj amul benn président ba si problème mu jia problème mu jaraaf. amul mhm. lenn kenn ko dund problème mu dund nii. mais dama koy jël ak philosophie jàpp ñu lépp dama koy delloo suñu loxo suñ suñu borom. Mhm. xëy na moo tax tey ñu ñu fii mais on est toujours ambitieux. daa mhm. am ambition yi que lu ñu bëgg di nañ fa yegg incha donc ñu jàpp na yaay yaay président club club d'une ville est ce que jàpp nañ ne tey maire bi mi ngi lay jàppale euh, financièrement ak bu dul financière ban côté la la maire bi di jàppale non man en tant que membre de deux en tant que membre de l'association. Mhm. mairie bi mu subvention À l'association, association Une subvention à 500 000. et je pense que nous avons xam 000 ni cinq cent mille subvention club première division. Mhm. mais c'est c'est la subvention que la mairie donne à l'association. donc vous ko association oui. day rester ci association l'association. association bi mhm. maintenant beaucoup de gens nga xam c'est la partie professionnelle. ñun mairie joxuñu Mhm. mais en tant que membre de l'association on a association mhm. mais amul association lu club parce que ah, parce que dañu euh, c'est l'équipe de football club comme association comme football professionnel bi de subventionner subventionné non non mais xam nga dire deux choses Je mhm. partie professionnelle. Mhm. bi tax ñi football ligue ñi football championnat professionnel. Mhm. te loolu entreprise moo ko yore. Mhm. entreprise bu ko yoree dañ dama ci am part association bi am ci part euh, supporters yi am ci part euh, mouvement mouvement ndawataan bi am ci part. école de école de football yi fa nekk am ci part. noonu lañ ko defee. am aussi 14 pour cent boo xam dañ ko fa teg pour bu amee beneen doomu géej waaye boo xam ne bëgg na ñëw jël ci part. ñu jaay la ko.

paiement salaire ba ñu ñu mm-hmm. amul pour salaire association mu jot activité yu pour l'association mm-hmm. def na mm-hmm. par exemple. centre euh, centre bi. donc pour yu gérer na catégorie légitime c'est normal. mais dans dans le contrat.

pour mon cas, bu xasee dugg pour association situation mhm. donc est-ce que mën na aussi loolu mooy loolu mooy problème Thialis parce que gis nañu chaque année dañuy dégg ay problème salaire ci ci ci équipe bi. Mhm. lan problème réellement. non mais football football football Sénégal amul amul retour d'investissement cest le football football Sénégal Mon ci football football bi génne la xaalis booy fay salaire. amul club yi fi nekk yëpp. Mhm. ba Pikine bi suñu suñu voisin yi di Pikine. ñu bal ma si li lim lañ ci lim lañ ciy tudd. mais ñoom daaw toog nañ quatre mois fayuñu salaire ba léegi fayuñu salaire yi ba léegi ñu salaire mhm. man fu mu ne nii woowal ku la neex salaire fay naa ko mhm. parce que salaire suñu xaalis la du du club bi génneewu ko mhm. parce que amul modèle économique boo xam ne tey jii club bi dina génne xaalis amul fii Sénégal parce que pour modèle économique bu ñu mën a teg pour xaalisam il faut que jàpp ci

da ngay subventionné benn benn benn discipline sportive bu fekkee équipe de football la sa koñ wala équipe de football sa quartier wala mu mhm. nekk basket équipe bu basket wala lu mënti nekk rek. Mhm. wala judoka wala karatéka. Mhm. jox subvention bu mot bu mu mën a dérouler activité am. maintenant en retour yow au lieu ngay fay say say say taxe ak say impôt. état da la koy wàññil. mais loolu benn loolu seen modèle économique tamit mu ngi dox. mais ñun amuñu modèle économique boobu. donc donc mon subvention mon dara. Mhm. donc il suffit def document def flip, la même chose. Mhm. donc il faut que pour le football du Sénégal. Mhm. voilà donc une euh, question bi euh, toujours une émission le grand débriefing Nous un grand monsieur hein, monsieur euh, Pape Faye président football club bi nga donc président nous avons euh, équipe bi nek defar na un pas pour mu pour mu monter. Hmm. après euh, mu dul monter. Hmm. Euh, lan mo xewoon lan mo xewoon ci diggante bob lan mo don problème bi équipe bi monté wul année bob bon c'était vraiment euh, en fait man sama à mon niveau c'était prévisible parce que man hmm. waxon na len ko parce que championnat aussi dañ koy fubal. mais club yi dañuy joggé ci ay région yu bari te da bo xolé région bu région Thiès bi amone na presque six équipes yu fa jógee. donc c'était très difficile. pour que équipe bu Dakar yëpp. Mm-hmm. mën a yéeg. et c' était dès le départ waxoon na ci j'avais ñu ma encadrement bi yëpp. Mm-hmm. na fait attention parce que dernier tour yi dina metti. Mm-hmm. parce que quel soit alpha il faut ak Mbour seen équipe bi dem. dem première division. te on a boo xoolee match contre jàmbaar suñ dernier match yëpp bon mënuñu wax ni. dañ ñu dañ dañu faral ñoom mais quand même. Hmm. xam nañ ni arbitrage bi jaaru yoon. jaaru yoon donc ñu gis aussi euh, problème coronavirus bi tax nañu arrêté championnat bi. Hmm. Euh, comité d'urgence jël nañ décision ba le comme que ni dañuy reprendre championnat play off ak play down. Hmm. ñu gis ne Guédiawaye bokk na ci ñi nga xam dañuy gisee play off pour monter en D2. naka nga gisee décision boobu nga xam ne d'urgence bi jël na ko. waaw bon xanaa du ko di rafetlu <coughs> président yoo xam ne peut être ànduñu si. Mm-hmm. mais àdduna mënuñu jël décision ñëpp ànd ci mënu nekk. donc am na ñu si ànd am ñu si ànd tey même décision bi bu ñu ko jël woon jël beneen décision tam beneen formule. Mm-hmm. peut être xëy na ñoom mën na lañ arrangé. mais mën na ma bañ a wala bañ a arrangé keneen. Mm-hmm. donc ça veut dire que une décision moom ñëpp mënuñu si ànd. maintenant décision ñoom bu ñu jël aussi mënuñu wax ni il faut que ñu ñuy copier toujours si pays si dëkk yi parce que dëkk bu nekk dafa dafa am autonomie boppam. Mhm. tey mënuñu copier si Égypte nañ leen xool Égypte wala nañ xool France arrêté na non. Mhm. pour man on a une structure bu fi nekk di liggéey. Mhm. tey structure boobu moom war na mën réunir décider ne lii la ñuy def. et pourtant décision bu ñu jël. ñi ko jël bokk ci comité d'urgence bi. ñom ñep sañu équipe bi président lañ jëm. le président Augustin Senghor en en en Ligue 1. Goré président la nek ak Jambar sa jàmbaar Sayer playdown la nek mhm. Adama L2 jamono. Mhm. mi ngi playdown. Mhm. et pourtant ñom ñoo jël décision bi. donc bu la neexon tay ñom ñu xol sañ intérêt. na duñ ko def. mais parce que buñ ko jëlé rek c' pour l'intérêt du football. donc ñun aussi ñun ñëpp dañu wara a xool ne c' du football ñu japp décision boo xamné décision bu baax la. maintenant ñun amuñu ci problème ñun ko ñu jouer play down play off ñun l'essentiel compétition la il faut que le championnat veut dire mhm. donc on n'est pas là aussi pour di ce faut football parce que football déjà lu ñu si les japonais dafa métti. Mhm. te jàpp nous autour du football nous si war a gën a pour football avancer mais vous faites ñun nous ñun lay commencé pour ñu football bi football Sénégal kenn xamul avenir am ëllëg. ñu gis euh, président Madi Touré def na benn sortie euh, la semaine passée. Mm-hmm. Euh, mu envoyé un circulaire au niveau des présidents pour ñu signer ko pétition. Mm-hmm. fan nga toll ci pétition est ce que signé nga ko wala daa ko ci li nga xam moom la wax. président Madi Touré mais ci mais man jotaguma circulaire. Mm-hmm. mais quand même woo na ma téléphone je suis man ak moom. donc en principe je suis d'accord sur si principe mu wax président yi war nañ di on war nañ am benn structure bu ñu toog di waxtaan di sottante xalaat pour suñu intérêt club yi. Mm-hmm. je suis tout à fait d'accord. Mm-hmm. maintenant quand quand ta pétition pour pour décision bu ñu jël. Mm-hmm. man je ne suis pas d'accord sur ça. parce que ñu ñoo fal ñoo ñu tek leen fa pour ñuy décider à notre place. donc certes am nañ dënk war nañu mëna a associer si décision bu ñu mënti jël. mais xeyna peut-être. jumte day am ci loolu. Mm-hmm. mais loolu mooy war a tax ñun ñu war a mën a di suñu biir. Mm-hmm. créer benn structure boo xam ne c' pour les clubs pour les présidents. Mm-hmm. pour que ëllëg bu dara amee ñu mën a woo présidents yi ne ñëw la waxtaan. fekk am nañu structure boo xam ne nii peut être deux ou trois parce que représenter ñu bokk ci waxtaan bi. mais nii nii bu ñu dem wootee club yëpp. y' a plus de trois au Sénégal pour ñëpp toog ñu ak situation bu ñu toll mhm. je pense que nekkul situation war nañ na am rassemblement. Mhm. donc il faut nit ñu comprendre que période bu ñu toll moo waru am rassemblement pour que ñu mën a woo mhm. donc tey ki nekk ligue amateur président équipe bu amateur ki nekk président équipe bu euh, ligue un wala ligue deux. ñoom ñëpp ñoo ñoo yem donc jàpp ma ni conditions conditions pour d'ailleurs les pour watan mhm. war na dans plus que ni état interdire le rassemblement public. Mhm. donc rek na jox ni war na permettre ñu de bonne foi. Mhm. et que de bonne foi là, parce que nous ñooñu tey ku nekk sa équipe play down jëm. Mhm. et pourtant ils ont pris une décision boo xam C'est l'intérêt intérêt nekku ci. Mhm. mais c'est l'intérêt du football. donc nous ñëpp ñu sauver le football. waaw mais pétition bi moom jotaguma si. te moo jotee aussi je ne suis pas signataire de la pétition. voilà nous gis ne 6 mars la Niger joué ci euh, play off yi Guédiawaye day génn 4 fois daal di recevoir ñaari yoon. Euh, naka la Guédiawaye di préparé man nan préparé cette seen qui bi nga euh, ci. waaw gée géejuwaay si playoff bi on a six matchs décisifs yu ñu war a fubal. Mhm. donc c' est vrai que dañuy génn deux. moo mhm. ne nga kat mais pour man deux la ñuy génn. Mhm. parce que deux moo nekk hors dakaar Dakar. dëgg la muy EG Fatick à Fatick ak Sonacos à Kaolack. mais Duc ak Wakam pour man dakaar lañu dëkk. Dakar lañ dëkk. te Duc amul terrain. Euh, Wakam amul terrain. mën nañ jàpp ne président day damat hivernal wala. non moom la la la fédération wax. Mhm. hivernal day am de quarante jours. à mhm. partir du mois de septembre. donc ñu démarrer championnat bi mois le 15 novembre. Mhm. mais mois aussi on a une réunion bu comité d'urgence bi. def boo aussi changé parce que mën avons mën na. avant novembre par rapport déjà avant avant avant novembre. mais lu gën le et que vous na préparé pas mhm. à tout championnat commencer mhm. le mhm. mais période période donc minimum c'est un mois. donc période hivernale déjà. donc dernier mot par rapport à li ci wax un non dernier mot deux choses faire deux appels. appel déjà président yi si football Sénégal que nous nous nous pour football parce que déjà football professionnel bi rek y' a trop de problèmes. Mhm. parce que amul xaalis ñu ñu si nekk ñëpp a sonn. Mhm. faj waa ligue si boppam amuñu Khalis, fédération on leen di dimbali le lu mhm. donc je pense que donc tay nekul moment bu ñu war a di xëccoog di kii moment wu dafar football bi la. en plus que équipe nationale amna ben image bu baax si si si si monde bi. donc ñun ci souf dañ ci wara a gën mais quand même nangul naa lañu aussi que ni fédération dañu wara a

mais loolu yëpp ñun la c'est dans le football il faut que ñu ñëpp ñu ñu joxante cër. Mm-hmm. respectante. Mm-hmm. donc pour football mën a mën a. Mm-hmm. donc mooy premier appel ma def si si côté football bi. et que di lañ wax aussi que fédération que xaalis bi nga xam ne nii jaakaar ne ni état bi dañ ci jàppale si mbas bi. FIFA jàppale ak CAF joxe na déjà cent dix millions. que mu dem ci club bi mu yóbbu ko directement ci club bi. parce que club bi soxla nañ ko. donc loolu moom c'est un appel ma def si si fédération bi ñu jàppale ci ñu jàppale club bi mhm. beneen appel def par rapport à l'équipe, bi par rapport aux supporters par rapport population Guédiawaye mhm. je pense qu'aujourd'hui, c'est décisif mhm. donc si le match est décisif c'est la vie d'un club. Mhm. donc ñun ñëpp mën nañ si mën donc population et supporters ñëpp war nañ mën a ñëw. Mhm. jàpp ci supporter équipe équipe équipe atteindre son objectif. mooy mhm. delluwaat dans l'élite. dans l'élite et puis ñu xam équipe bi équipe bu Thialis. du équipe bu Zala. du équipe bu Jamil. mais équipe bu population et boo population mooy supporters nous ñun ñëpp dañuy dem. bàyyi fi équipe bi donc contrat bu jeexee. association aussi dañ ko fi bàyyi mais on restera toujours membre de l'association mais dañuy dem defi leneen kan a ñor équipe bi donc ñu xam

joueurs dañ fiy jóge mais ay supporters kese yaakaar naa ñoom ñooy resté ci équipe intacte loolu mu def appel bu am importance bi nga xamante ni tey def na ko par rapport ak euh, li nga xamante ni moom lañ jëm muy euh, match yi nga xam match six match yi nga xamante ne ni comme ni mu ko wax rek c'est la vie euh, d'un donc ñu koy gërëm di ko remercier baax ci dalal bi nga xamante ni nangu nañu ko dalal yaakaar occasion la woon tey ñu waxtaan parce que depuis boobu léegi amuñu tamit temps pour waxtaan ci donc tey mu ñëw ubbil euh, géejawaay info ay micro ñu waxtaan ci footballu géejawaay ñu koy remercier bu baax a baax a baax ci décision yi nga xam te ni wax na ko ak ci waxtaan bi nga xam te ni def na ko ñu koy jaajëfal di leen jox rendez-vous la prochaine fois di leen wax nag ne euh, euh, ñëw ma fi woon noonu kase ànd naa fi ak sama caméraman bi Bekaay ak Issa di leen du ak ñoom càndum di leen remercier bu baax di joxaat rendez-vous pour la semaine prochaine ci seen beneen numéro le grand